di djeglu ci retard bi di djeglu aussi pour euh, chef de village bi nga xamantene ne na fe tew waye am réunion ak sous-préfet bu sinja motax tay manou fe tew donc fii ñu toll nii di waxtan mom actuellement mi ngi def réunion ak sous-préfet bu Sindia moo euh, ñewul euh di wote tay ndaje ngir indi ay leral ci li nga xamante ne euh, xew na fi fan yi muy ay xew-xew yu nga xamante ne euh, lu doy waar la ci lu ñuy tuddee nation ndax nation dafa am lu ko lal dafa bokk ci lu ñuy wax cohésion sociale dafa bokk ci lu ñuy wax paix sociale paix sociale boobu nag tey PDG wu Sedima mi ngi koy commencé di sappe mi ngi commencé di jaxan jaxase askan bi ngir sauver ay intérêt loolu nag moom la askanu Jilaax di ñaawlu waaye tamit moom la collectif pour la défense des intérêts de Jilaax di ñaawlu loi boobu rek mu ñu ñuy tuddee day jaxase ngir en tout cas bëgg a moom la ñuy wax ni loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg suuf soosu nga xam ne tey moom moo nekk jafe-jafe yi ñépp xam nañu suuf soosu mi ngi nekk ci biir commune Sindian suuf soosu mi ngi nekk ci dëkk bu ñuy wax Jilaax délibération boobu commune Sindian moo ko def en 2012 mu indi woon ay jafe-jafe ndax amoon na un problème de consensus

ak bu Sindia ñu ñëw ngir régler problème bi président commission domaniale yu trois communes yëpp ñëw ñu def un procès verbal ñu waxtaan ba trouver un lieu benn délimitation bi nga xamante ne defoon nañ ko ba pare li desoon moom mooy techniciens yi wàcc suuf def délimitation bi ni commune Fissel fii nga yem commune Sessène fii nga yem commune Sindia fii nga yem liggéey boobu nag àggul ndax amul suivi amul évaluation loolu nag moom mooy dox ba ak si tey di jafe-jafe yi di gën di tar di commencé jël ay proportions yoo xamante ne eh, jëmul kër kon damay fàttali di confirmer encore li nga xamante ne moom mooy mës na nekk position que suuf soosu na leer ci bopp ñépp Jilaax la nekk ci biir commune Sindia moom la nekk loolu dafa war a leer ci bopp ñëpp li jëm nag ci projet bi nga xamante ne moom wax muy projet wu Babacar Ngom ñun waxaguñu waxu turu projet dafa am suuf soo xam dañ ko koo jox ngir mu mu dem Sénégal defal ko un titre foncier ne jaarul fu mu war jaar te techniciens yi nga ne ils sont sérieux seen xam-xam match ci vois le ci tu ci le foncier ñom ñep d'accord nañ ci ni titre foncier warul am parce que zone euh, zone zone zone euh, de terroir mais aussi c'est une zone agricole alors que dans une zone agricole on ne peut pas n'est-ce pas donc décerner un titre foncier le motax titre foncier bobu ñuy ñaan son excellence le président Macky Sall bu fekkente ni askanu un ñor nako commune Sindia ñor nako na ko dindi joxewaat wat soufsi parce que titre foncier bi légalul légitimul bu fekkee liggéey rek soxlawuñu un titre foncier liko li ko waral mooy tay tey tey ma fa mu à côté yaa ngi ak plan REVA plan REVA sauf foofu amul délibération te délibération bu am sax ci waa tu lañ amul bay amul titre foncier mais promoteur bu fa mën a contrat signé contrat beau soit 5 ans lay wala 10 ans lay nekk beau pareil bu askan bi gisee ni li nga na gis nañ ci seen bopp nga dem euh, euh, maintenant lu li nga def wala bok li nga liggéey gis ni gisuñu seen bopp ñu bàyyi la ut keneen loolu nag mooy partenariat gagnant gagnant askan bi loolu la ñuy xaar kon ñun lu ñuy xeex collectif bi lu muy xeex Jilaax lu muy réclamer moom mooy nañu dindi titre foncier bii nga xamante ne allah kulli alin intéressé wul dëkk Jilaax bi dëkk Jilaax intéressé wul aussi donc les populations les populations du Jilaax